bëriwul donc pourquoi ñu bëgg ñoo imposer dans la tête des Sénégalais que coûte au coûte dafa war a am des nominations dans toutes les postes que coûte au coûte dafa war a am changement drastique ci li nga xaman ne moom mooy la coût de la, le vie du des des Sénégalais ñu ngi liggéey ils sont en train de faire mm-hmm. des efforts ils sont en train de poser des jalons mm-hmm. ci jalons yooyu nag je pense que sànq yaa ngi wax le journal Point Actu mm-hmm. mais ci biir journal boobu un candidat malheureux ci élection présidentielle Boubacar Camara il faut le rappeler de Diengou Daba mhm. mais oui il reconnaît que ils sont en train de poser des jalons et ça je pense que ku nekk war na ci nangu que ni ñoom ci seen bopp ñu ngi teg pour mën a dem ci li nga xam ne mooy changement boobu joxe woon nañu une date la date c'était le 15 mai. le président Bassirou Diomaye Faye avait ordonné que en tout cas donnant le premier ministre mm-hmm. à ce que avant la date du 15 mai ñu mën a mm-hmm. indi des propositions yoo xamante ne dañuy toog càmbar ci proposition yooyu pour que justement lu jëm ci wàllum le coût de la le coût vie chère ci biir mm-hmm. Sénégal ñu mën koo wàññi mais aussi dans d'autres domaines par rapport justement à la location entre autres. waxuñu ne à partir du 15 mai dañuy wàññi le coût de la vie attention il faut que nit ñi ñu comprendre exactement qu'est-ce qui se passe parce que faut pas que ñu topp ñi nga xamante ne ñoom ci seen bopp li ñu bëgg mooy sénégalais yi commencé na non ils ont échoué entre autres moom moo tax entre autres pour comme pour ñu mën leen may nopp non il faut comprendre ce qui s'est en train de se passer ce qui s'est en train de passer c'est que le président a ordonné à son premier ministre et à son gouvernement ñu d'ici le mai ñu proposé ko lenn loo xamante ne dinañ ci mën a sukkandiku pour ñu mën a def li nga xam moom mooy seen ay projet li nga xam moom mooy seen mbir pour mën a wàññi le coût de la vie et ça c' important encore une fois que ñu proposé ko li nga xam moom mooy les citoyens mënuñu xëy du tic au mu changer ça il faut encore une fois qu'on puisse le dire et de façon très honnête ça ne peut pas changer du tic au que les Sénégalais li ñu soxla changement la oui li ñu soxla mooy beaucoup de choses qui doivent changer ci li nga xam ñu ngi fi parce que euh, je pense que am na benn jour ñu ngi waxtaan ak benn gerte bi il y des urgences mais encore une fois il y des priorités parmi les urgences et les priorités maintenant yan la ñu war gën a songu comment faire pour justement bu leen songee parce que il ne s'agit pas de changer tout simplement il ne s'agit pas laaj des yoo xamante durable lay doon mais des solutions yoo xamante ne askanu Sénégal bu buñ ci jàllee dootuñu xalaat dellu si waat ci changement bi nga xamante mu ngi xew parce en 2012 bi Macky Sall ñëwee boo leen fàttalikoo coow lii xewoon na fi mhm. y avait beaucoup d'inflation y avait beaucoup de choses yoo xamante dafa yokk woon mhm. très rapidement dañoo le gouvernement de Abdoul Mbaye mhm. mais après qu'est-ce qui s'est passé on a vu qu'il y a eu encore une fois un, retour en arrière ci nga xam moom mhm. donc euh, changer oui mais mhm. changer avec euh, intelligence boo xamante ne ëllëg du ñu dellu soit situation bi nga xamante ne Sénégal ñu ngi koy dund. d'accord quand on nous dit actuellement des des bureaux yoo xam dañoo vide à la primature ak ci yenn